jërë ngeen jëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb nu yooti nañ leen am kontante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne mbokk di leen baaluwaat àq bu baax a baax a baax di leen baalu àq di ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ni moo am jéggal suñu borom boole jéggal ñuy profité waat bu baax a baax a baax di baalu àq ñëpp ci julli gi fépp fu waay nekk ci àdduna di ñu seetaan ñu lay baalu àq. di la baal ak di ñaan yàlla suñu borom boole ñu jéggal gis nañ nag bëgg ngeen bëgg wasaare làmb gis nañ safoo bi ngeen di safoo wasaare làmb ba waral na tépp lu dal wasaare làmb day mel ni yéen la dal appel ñu ngi may woo fu nekk eh, ci bitim réew ak ci réew mi ak fépp ci sous raison bi ñëpp ñu may woo di ñu masawu ci li nga xamante ne moo ñu dal ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax a baax looloo waral ngeen gëj ñoo gis ba tey tax na ñu déplacé wu dem seeti benn mbër waaye mbër bi moo koy seeti maa dajeek moom mu dem entraînement mu ànd ak moom entrainement ñëw ci ci ci këram waaye ñu ci bari dañ ko daan fekk Medina tey nag mu fekk ko fii ci Golf Sud euh, Serigne Ndiaye déw yu yoo gonek Fass bi nga xamante ne macha allah bu bëree mu neex euh, su xeexee mu neex su dugg see ci làmb doo laajte ana mbër mi moom laa seet si dégg naa xar bi da koo defal bagage. ma koy masaw bu baax a baax a baax siyaar naa la mbër. delloo siyaar sëñ Jiiri mm. maa siyaar ñëpp siyaar waa àddina di suyu di jégaluwaat encore suma mbokk yi bu baax a baax si julli wu ñu jógee mooy suma waa dëkk waa Ndiaffate séeréer mm. Ndiaffate Escale Ndiaffate Beyrouth Ndiaffate Socé ak soixante-quinze villages yi ko wër yëpp di nuyu waa maintenant gi ma juddoo yoroo fa màggee fa di leen baalu wax si julli gu nekk nii di nuyu waa golf bu baax di leen baalu wax bu baax a baax ak waa Ndar nga di xam nga ak waa écurie Fass li ko dalee suñu papa Abass Ndoye suñu papa Tafa Gueye su may entraîneur père Ibrahima Mbaye yàlla na ko yàlla may wér père Socé père Guèye Camara père Seck di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla dafa leen jàmm di leen baal àq di leen bu baax parce que amee na leen àq bu baax di nuy suma grand yi nekk si écurie bi ku su mel ni suma grand Gris Bordeaux ñoom Forza xam nga ku lim dëgg ak juum daal mais maa ngi jël loxo bi teg suma teg suma loxo grand Gris Bordeaux di wax mu jàll mu baal ma ñëpp àq di nuyu sumay papa yu fi nekk ak sumay yaay bu baax di leen gërëm di nuyu suma kër suma famille di leen balax di leen balax bu baax di leen masawu nag yéen waa wasaare ndax wax dëgg yàlla moom yéen da bokk ngeen si lu defar làmb ba ngeen ñëwee ba léegi yàqoon affaire yi mbër bu leen gisee nga jox wàcc waayam xam nga jox ko lim moom donc wala amee tiis wala naqar ñëpp la dal waaw wax dëgg di leen ñaan yàlla loolu yàlla topp seen ay vraiment ngeen nekk ca karoot ca kanam yàlla dafa leen jàmmee ñëpp di la bëggee bu baax nag dérangement parce que vraiment bett trop wax dëgg yàlla dama napp quoi. mais li ma jaaxal li mu la war a njëkk a laaj. mooy lendemain tabaski. mbër yu ci bari dañuy toog seen kër noppalu. parce que yàpp bi da leen di lu waral entraînement bi tey. waaw ah noppal boobu nag mooy ne rek parce que bu noo yendoo lekk gras tout la journée nga bëgg toog deux jours trois jours sans rien faire démb démb bu ñu amoon temps démb démb dañuy doon jug si guddi gi footing mais xam nga tey dañuy yeewu tamit defar yaram et tout réveil musculaire xam loolu quoi. Hmm. mais jaaxlewoo ci topp gi ma la topp ñu wàcc ànd ci dini entraîné gis séance yi nga xamante ne yaa ngi koy def. non man kay dama dama tiita parce que man ñaari ñoom xaw ma woon liggéey ay caméra yooyu wax dëgg yàlla parce que man dina souvent def émission moo jox ma def ko pare mais xam rek mooy loolu bi moom ma si jégalu bu baax sama Pape Tafa Gueye xam ko wax ne woo naa ko ba son jotuma ko wax dëgg yàlla moo tax quoi. Hmm. naka julli gi dégg naa xar bi dalaa defal bagage quoi. xar añcee yow kese yaa ko dóor. non paa bi loolu moo wax paa na ma entraîné woon waroon dóor démb xar añcee tey nga laajte moo ci xar pour daaneel ko <laughs> wax nga loolu lépp quoi. Eh. wax dëgg mais trois mois pandémie ñu jógee ci feebar activité yu bare bare bari dagg. Eh, ku xamoon Serigne Ndiaye xam ni chaque dimanche samedi da daan laal gàtt gàtt benn cinq cent un di compétir gisuñu loolu yëpp ci yow tabaski bi est-ce que amul lum la gàllankoor. waaw wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax parce que boo seetee amu ñoo xam ne tey ñu si ginnaaw di la jàppale. Mm-hmm. xam nga ku si mel ne sama papa Tafa Gueye ñaan yàlla mu yàgg fi loolu tànn ak wér parce que boo seetee tey dama demandé kenn soutien. nga mm-hmm. naan yàlla yonte bi moom moo tax. parce que dama xoolee comme doomam xam na état bu ma toll te puis ñu ngi sant yàlla baax teg nañ si yoon boo xamante ne tey pendant bu ne fekk sant yàlla baax du benn problème. Mm-hmm. vraiment di nuy tam suma coach bi nga xamante ne mooy coach Max Max Bodi di ko nuyu bu baax di ko baal di ko baal ak suma copain DJ suma coach Jo di nuyu waa Thiadiaye yëpp vraiment. mais lii moom moo dëgg yàlla yàqalu ma suma yàqalu ma dara te wàññilu ma dara tamit parce que maa ngi sant yàlla bu baax. Mm-hmm. waaw am na kilifa yu nekk suma ginnaaw li may jàppale bu baax. Mm-hmm. Mm-hmm. Serigne Ndiaye li ma bëgg ñu waxtaanee ko est-ce que mës naa am koo xamante ne tey euh, mës na la def lu la metti ba boo ko rombee doo ko nuyu wala mës na la def lu la metti loo xamante ni jàpp nga ko ci sa xol. non man man yàlla man yàlla daf ma may xol boo xamante ne man ma jàpp mun nañ mer nag dóorante ay coups après suba bu jàllee jeex na ko ñu si leen mais tamit du ñàkk nag yow mbër na amee ñu bëri àq. Hmm. parce que làmb dafa metti boo jëlee combat li ko dalee sa koñ sa quartier kenn du nalaw xam nga kenn du yendoo day bëri bruit xam nga si nga teg sa famille stress boo xamante ni sa waay xam nga si genre bés mel nii rek ngeen mun dem ngeen taxaw ne leen baal leen ñu baal laa genre bés yu mel mais xam nga dafa métti quoi vraiment moo tax ñun bëri souvent genre bés yi lañ mën am pour ñu jégal ñëpp. Hmm. baal ñu di baaluwaat ak bu baax suñu ay mbokk di baaluwaat ak bu baax suñu ay supporters suñu ay am di jàmm. surtout suñuy àndal. suñu entraîneurs yi ñoom dañuy entraîné rek ay coono yu ne bàyyi seen yitte yëpp ay mag fajar ñu ànd ak ñun xam nga rek heure bu ne. Mm. ñu ngi utali affaire ay ñaan ku su mel ni Baye Abdou Ngingue maa ngi koy siyaat di ko baalu ak sama booy Zal xam nga maam Samba xam nga euh, su ma jaay gërëm xam nga ñooñu ak Maodo Lamine ñii dañuy sonn samay mbir bu baax a baax baax. Mm. te dara doonul dara boobu ba léegi bàyyiwuñu nekk ñu nekk man 24 heures sur 24. du ma pousser vers la victoire du ma pousser vers un grand champion. Mm. donc ñu amoon seen fay dama leen baal wax bu baax di leen ñaanal yàlla dafa leen jàmm. Mm. ñu yàgg fi loolu tànn ak suma grand tamit Bala Samb. tamit mm. waaw bi nga maar. suma grand bu baax la. mbër yi am na ci ñoo xamante ne yëkkati nañ seen téléphone. woola baalu la àq wala yow def nga ko am na ci mbër yoo xam ne yëkkati nga sa téléphone ba woo leen ne leen àq. waaw mais loolu lu mu ñàkk la parce que mbër yi say kilifa lañ. wala mbër yi say kilifa lañ te xam boo nekk ak ñoom. Euh, nekk sa kilifa tam nooy doxee moom te écurie la am ñooy suma lépp. Hmm. tey maa fa gën nekk xale. mais damay ñaan ñoom ñëpp yàlla dafa leen jàmm ku si am combat yàlla may la ndam ku si amul combat yàlla may la combat nga am ndam écurie Fass nekk écurie boo xamante ni macha allah. ñaanal suma président écurie nag Père Abass Ndoye yàlla ko jàmm bu baax. Hmm. ba yan bi mu yan ni mu nekk yan bu oyof toll ci kawam. Hmm. xam nga di ñaanal mbër yëpp mbër yëpp mbër yëpp yàlla may leen ndam suma papa Tafa tamit ak soxnaam. ak suma frère Mohamed ñoom ñëpp yàlla dafa leen jàmm yàlla bàyyi leen parce que fii ma la fekk Golf Sud dafa am koo xamante ni champion la mu dëkk fii nga ñëw jullisee fii te laaj naa la sànq nga ne ma fii xëy na danga maa xamul la waaye yàgg naa fi euh, ban relation nga am ak moom Balla Gaye 2 te mu war a bëre ki nga xamante ni euh, mooy sa liet naa Gris Bordeaux non du relation du relation parce que relation mooy jàmm ak salaam parce que mbër la. si li ñuy yëngatu suma kilifa la si. parce que champion la. te wax dëgg yàlla xamal ma ko leneen lu champion ak romb sawa sawa lañ sekk. di ko ñaanal jàmm fii nii su maam moo nekkoon chef de quartier fii yëpp. Mm. Pathé Diop. ko xamoon fi yaakaar naa dégg nga ko. Mm. donc man fii su may waajur fii lañ juddoo. comprendre man sama jëm bopp nekk am naa fi ab bu yaatu jógee fi dem delluwaat maintenant parce que maintenant man laa juddoo mais ñoo naa fi am fi même bu dee quatre ko fi après ma delluwaat maintenant comprendre nga donc man dama combler diggante golf ak Medina comprendre nga laa combler te te tamit ay ay ay ay dëkkandoo bu ñu nekkee duñ sekk loolu jàmm ak salaam nañu sekk bu mm-hmm. dëgg yàlla mais man Serigne Ndiaye numéro deux man écurie Fass moo dee sama xol Serigne Ndiaye numéro deux euh, teguma fenn làmb dul écurie Fass mm. bu man waaw Gris Bordeaux mm. fi ñu tolloon Balla Gaye ci man ci histoire làmb mm. ci Gris Bordeaux laa mës gis mbër bi dugg si huit heures stade war a bëre vingt combat bi ñëwaat est-ce que li ngeen defoon di ngeen ko defal ndax wolof def na moom lu mag doon def ba dee bu dekkee ba ko waaw mais loolu loolu doo sax dara kii def Fass xale laa fa Fass amul ma fay décider xale laa fa. non mais dañuy waxtaan comme en tant que koo xamante ni xam na làmb euh, pas Gris Bordeaux sa liet naa la d' accord Serigne Ndiaye lu am Fass ko gënal mais ñu waxtaan ci làmb ndax Balla Gaye ngeen jëlaat te Gris Bordeaux mi jël Balla Gaye gëm na ni da ko war a duma daan ko. Balla gëm na ni Gris daan naa ko mais nee na leer te daa war a leer ndax wax na ko. yow sa sa yow selon que boo doon indi Gris Bordeaux tey lan ngeen war a mën a def ba am ci ndam. xam mooy waxtaan la waxtaan ci loo maîtriser ak loo xam. Hmm. Gris Bordeaux du ma suma grand la xam nga moom entré en face man entraînement la ma entré en face fils dafa lii ma def loolu man au fond Gris ñëw rek Gris ñëw dix-sept heures ñëw yëpp man solo solo ma leen mooy Gris Bordeaux yàlla may ko ndam la jour lu tax kon nga ngemb ko ngemb boobu tax nga ne xale nga. waaw ngemb boobu du ngemb xale. <laughs> ngemb xale la kay. déedéet loolu du ngemb xale. ngemb boo xam ne Balla Gaye 2 amul fu mu jàpp. waaw ah, la xam nga ne Balla moom loxo yi lépp Balla day bëri ba ci bopp bi mais xam rek loolu ndimbal yàlla suñu borom rek dëgg yàlla mais du dara. Hmm. Euh, tey ñu doon ñaan loo xamante ne lu rëy la ci làmb koo dékk micro moo xam muy reporter moo xam muy présentateur moo xam muy képp ku mun ti doon ci àdduna li muy ñaan mooy ñu ngànk làmb li ñuy ñaan mooy ñu ngi ñaan président de la république suñu papa Luc Nicolaï ñu bàyyi ko ñu ngi koy ñaan ba yàlla suñu borom dogal na suñu ñaan woowu tey ban ban yëg-yëg nga ci am. waaw suñu papa Luc Nicolaï képp ku yëngu ci làmb hmm. wala képp ku nekk ci àdduna rek bëgg lu baax bëgg lu baax la rek. Hmm. ak kuy jàppale ndaw saa bu xëy da war a ñaan Luc Nicolaï yàlla bàyyi ko mu gudd parce que gis nañ fu mu yóbbu làmb ji gis na ne jox na cër mbër yi gis nañ ne pare na pour fay mbër 500 millions te xam nga ne mbër li muy dundal dafa bari. Mm-hmm. mbër da toll boo xam ne ku ñu lëmb yaa ngi dundal wala quartier lëmb yaa ku ci am problème day ñëw taxaw boo ko joxul moom am na si kii xam nga sa famille sa quartier ñëpp si yow lañu yaakaar donc mbër loo ko fay ñëw jar na ko te moom il est reconnaissant donc ñu mbër itam war nañu manqué woo ci lépp xam te ni képp ku nekk su làmb boo amee ay jafe-jafe mu taxawu si taxawu ko jusqu'au bout loolu résoudre di ko ñaanal wax dëgg yàlla nag problème bi ba ñu ñëwati si àddina yàlla may ko wér ak wérle ak moroom promoteur am yëpp. di ko ñaanal loolu bu baax a baax a baax di ko wax ne carrément làmb ji namoon nañ ko te làmb ji am nañ moom yaakaar bu baax a baax a baax. ni ngay waxee nii for naa ci wéeru bay Luc Nicolaï mosulaa tëggal. non mosuma tëggal wax dëgg yàlla mosuma tëggal mais dama gis bien fait yi muy def. xam nga parce que tey ñun mbëri tey xam nga tey bu bu tëggee Balla Gaye Modou tey ba Balla Gaye Modou Lo tollee niveau yi tey. Mm. donc loolu suma suñu ay naaw mbër lañu. Mm. tey bu ma romee ñu ne kër gi kër Modou Lo tey ma xool kër gi taar loolu damay kontaan xam ne ah, am ko mm. mm. mais loolu si la lañ ko si la fa lañ ko jëlee parce que promoteur bi te moom taxawul ne mbëri mu fay ko cinquante millions non non non mbëri war nañ mu fay ko te bu àdduna dox da ngay moom. nit kenn ko daggal wërsëgam ne sa wërsëg fii lay am non moo tax moom dama ko si jaajëfal bu baax di ko ñaanal yàlla bàyyi yàlla bàyyi ko fi ko cat nag. bu baax a baax a baax a baax. mu ñëwaat ak doole. lan nga gën ci làmb actuellement ndax yaram bi nangu daa mel ni namm na ko ndax yaa ngi ñaq rek sax instant ngay ñaq rek. non instant moom ni ma namee sax. loo gën a namm wàcc dugg si wala tuus bi wala bëri. non man dama namm fay combat laa namm premièrement fay combat laa njëkk namm maanaam moo war a suba ci heure bi diggante vingt heures jàpp vingt trois na mun naa ko lool. loolu ci lum lay fekk ngay def. non instant yii koñ ba maintenant maintenant kenn du fa xaj. ay laay la la naa tax sama mbokk séeréer tamit na mën naa demi final jëm final tamit na mun naa ko lool vraiment. mbër yi fi mu toll nii actuellement nii ban mbër nga ëpp loo xamante ni moom ngay dégganteel. tout temps sa temps ci moom nga koy passé di ngeen waxtaan di partager lépp daanaka ñëpp say xarit lañ mais am na ci koo xamante ne li ngeen waxtaan bari na trop te na la kal yoo bokk képp koy waxtaanal rek. non wax dëgg yàlla moom man aw ma aw ma xaritu mbër. Hmm. man am naa ñaari frère mbër yoo xam ne su may njël lañ mooy seen kumpa. ki nga xamante ne hmm. moom mooy bu fekkee ñu ma bokkul ikiri ak dijee. Sopé Kalass moom suma frère la suma deret la mhm. mais ñaari mbër yoo xam te ne tey jii moom bu dëgg yàlla ñii suma ay nit lañ da dem seen kër di fa lekk mu ngi suma kër di fa lekk mun naa sol seen yére mun nañ sama yére bu ñu ma saafara mu koy sangoo sans arrière pensée mhm. muy seen kumpa ak xam ne mooy liggéey mais écurie Fass duñ samay xarit écurie Fass samay deret lañ sumay kilifa ñoo fa nekk dafa nekk say kilifa nag dara war fa am lu jàmm salaam mhm. waaw booy da ngaa ñàng. non ñàng dafa. donc boo waxee macha allah da xam ni âge bi demeewul noonu mais macha allah boo waxee ñoo xam ni mbër mu yàlla may la macha allah ci côté mental yàlla na yàlla xeb dolli yàlla defal la jàmm euh, fii ma la fekk euh, mën nga ma ci expliquer tuuti parce que dafa mel ni fee laa la daan fekk tey ma fekk la fii. waaw fii su ma kër papa la su ma rax papa moom moom fii. Hmm. ñu koy wax sama papa Bada menuisier la. nekk rue un angle angle Blaise mm. ñu koy wax Loyen Bois moom moo ma yar tàggat ma si man lu bari bari bari bari mu ñëw golf tamit nag fekkoon fu sumay grand yi doon bëri mm. ku su mel ñoom zan doon bëri ak waa tilim gi waa xete naaja doon bëri doon bëri lu rëy ma nekkoon seen ay booy nekk seen biir mais àdduna di dox ànd di dox ba zan biir bi xaw a génn mu mm. découragé. ñu doon mbër xam ne état bi yàqu <laughs> xale sa état bi yàqu na. sama benn xarit da doon wax naa biiru xale doole la zan bu lu doon bàyyi biiru xale doole la. non zan bii bi dafa jéggi dayoo te te loolu mën a tarapé noonu da koy bëgg da koy wér si sama boor. moom jàmm. su ma toogee maintenant wala ma toog ma toog Kër Tafage mois ñëw fii. Mm. parce que Kër fa nekkee weekend naa am samedi laa am a fekkaat Kër Tafage. Mm. donc su ma toogee foofu ñëw ma fii deux mois dafay woo téléphone aaru sama kaw. daa war a ñëw golf même bu dee benn fan nga toog fii gars yi teg la bët néeg nii ma xam ne kii bëggal na boppam te su ma ñëwee fi tey bàyyi yitteem yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp liggéey di ànd ak man di matin dem géej ngoon jël alalam di ko def si man tax bu ko neexoo man yàlla may na ma alal am na lu moom as tuut hmm. mais da jël alalam di ko def si man jël temps jël léppam di si man donc kooku amu fayam mu tëgg yàlla hmm. ak ñu may sama boo yi may àndal yëpp waa tilim gi yëpp ku dëgg maa ngi sant bu baax waa golf bu baax a baax na léeg wax ne nag combat yi di ñëw nii ñu mobiliser bu baax a baax a baax a baax comme ni ko Medina defee waa Ndar di ko defee noonu waa Njaafa di ko defee noonu nañ jaayante mobiliser di sant suma benn papa nag Père Amadou Fall golf Père Amadou Fall golf mention spéciale parce que xamante wuñu mais gars yi dem si ma ne ko Serigne Ndiaye numéro 2 am na combat golf la dëkk mu jël moyen am jël dooleem jël léppam def si Père Amadou Fall Père Amadou Fall mi dëkk ci côté pharmacie bi fële merci maa ko xam paa bu baax nga noonu te fii golf ñaar autorité ñoo fi nekk macha allah. mais moom dafa volonté wu ne dafa ma jàppale ba ko neexoon mu ne xaw ma mosuma gis. mais loolu moom marqué dafa marqué bu baax baax di ko sant bu baax di ko ñaanal mu yàgg bi loolu tamit Père Fall. ma lay jëfal bu baax a baax a baax ndax xam naa ne fi mu toll nii yombul. Mm-hmm. Euh, ñu tabaski ba noppi nga dem kër mbër seeti ko. Eh, daanaka dama laa woo téléphone yëgal la foo nekk nga ni ma fii ma déplacé wu ñëw ma lay ñaanal bu baax a baax yàlla suñu borom may la gudd fan ak wér ba fépp foo bëgg a yegg ci làmp yàlla suñu borom defal la ci lu kawe sa njort di la jaajëfalaat bu baax a baax lan nga bëggoon wax loo xamante ne laajuma la ko te bëggoon nga ko wax te waxoo ko su ko sim nag dégguma nga baalu ko àq ba tey. waaw moom loolu lu mu ñàkku la parce que ay adversaire lañ rek duñ ay noon quoi vraiment hmm. xam nga te boo seetee ñun daf nañ daf nañ ñun daf nañ tabaski tabaski célibataire. Hmm. tabaski célibataire booy la lañ def ñun. moom tabaski marié ma koy nuyu di rek bu baax a baax. yow ak keroog da nga la ko bàyyi luy soxnaam ku mën ceeb la mel ni da ngaa lekk ceebu soxna. si soxnaam borom baax la quoi di nuyu nag si nga xamante mooy sama jabaru yoonu yàlla soxna wit takk ko muy ay dëgg yi. ay ki nga la wax neex ceeb. neex ceeb jërëjëf. su ma meer dëkk nag Asu su ma mère dëkk Asou Ndiaye. yàlla ko yàlla dafal jàmm bu baax a baax jigéen bu mun góor la. vraiment tey su may bëri boo xoolee Njaafa ñaari bus dafay jugee ak ay car du kenn xamul lépp ci propre moyen lay dem ak ay t-shirt jël alal bu bari teg ko su ma la wax noonu fii préparé su combat jigéen bu mun góor la. Mm. te Njaafa ku ne xam ne du fii ginnaaw Kaolack la. 15 mm. kilomètres de Kaolack du fii. Mm. su ma la yaay gën a jàng maa ngay sant bu baax di ko gërëm coach Alouche. Aziz doo ko fàtte ne. non Aziz Aziz c'est mon père. Sere xaw ma lan grain. <laughs> ak Grégory Chopin. <laughs> l'homme fort l'homme des crochets. xam nga di ko nuyu bu baax di ko parce que ñii. tey làmb dafa yaatu. tey ku su ma ne Grégory. ame la nekk. mais imagine day dagg bi yam jóge Miami benn fan la fi def benn fan. delluwaat pour lan wax ak man xool ma xool sama famille delluwaat benn fan ñaata la si xaalis jox ma ko. Hmm. alus même combat mu jóge bàyyi yëpp jóge France ñëw. indaale affaire am tudd un franc mille xam ne daf ma koy demandé. loolu loolu mën naa fayam pour lan mu am mu su ma nee combat ñiy bàyyi seen yiteem ñëw teg seen bakkan pour lan la. ñooñu aw ma seen fay su ma écrit maa ngi nuyu baax itam di leen waa Medina maa ngi sant bu baax di leen gërëm bu dëgg yàlla maa ngi sant bu baax nag waa Mbour waa Mbuur. Mm. maa ngi sant bu baax waa Mbour xëy na su ma ko waxee moom dina xam boppam bu baax a baax. gis naa Mbour rek maa ngi sant waaw waa na koy sant Mbour. waxal tur moom koy sant xam na xam na xam na gis naa teraanga yi gis naa tax boobu léegi bàyyiwoo. yàlla yàlla defal jàmm. Hmm. xam nga di nuyu suma yaay bu baax nag. Hmm. suma yaay moom. Hmm. yaay yàlla nañu fi yàgg waay. amiin mère dëgër musóor. amiin li ko on le fou di waxee. waaw xam nga solo. di nuyu sama papa bu baax yàlla may ko wér. xam nga di nuyu sama fi ma fekk muy golf sama famille ñoom papa. nuyu ñëpp di nuyu waa Médina suma fami suma gars yi ma àndal di nuyu sama mag petit. Hmm. sama mag petit di ko nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm parce que ku am temps tuddee lu ko rek loolu yombul. Hmm. xam nga sama bopp itam sama cumukaay itam aussi noonu waxi noppi Zal waxi noppi Bada xam nga rek euh, Maodo lamin Maam Samba ñii doo nekk ñoom dañ nii tey ku si ne su ma xewlee dangay bàyyi sa yite yëpp hmm. ànd ak ma ci àll yi pour la na Serigne Ndiaye de am ndam. sant suma kilifa Baye Abdou Gningue Kabandoski ma koy sant ba def gërëm Kabandoski di ko ñaanal mu julli ak jàmm salaam ñëw si jàmm salaam di nuyu nag itam bu baax laqale nga trop. na nga baax. da ma napp yow. <laughs> da ma napp mu nekk su ma ñibbee per mu dóoree gauche droite rek. Eh. yow la père lu munti xew moom la. ndax dama bett. mais père maa ngi ñaanal tamit père Tafa Gueye mm. dund bu mm. baax. yàlla defal la jàmm. Mm. yàlla may la wér si kanamu njaboot gi. suma ma jaraaf dundal lu bëree bëri parce que gis naa taxaw boobu léegi. na nekk si kër jàmbur yombul. man ñàkk ma fu mu nekk. mu nekk. mais boo nekk gisee indi la këram ngay nekk këram di yeewu këram ak doomam jox la foo nekk amoo benn problème saa yi kooku amoo fayam. te du la woon benn kanam bëti muy xoolee ay doom bëti la may xoolee man bu ko raw sax. Hmm. kooku amoo fayam. yàlla ko yàlla defal jàmm. di leen bëggee bu baax di la wax ne nag affaire yàlla gën a saan baawaan. Hmm. caméra yi dikkaat xam nga lépp dikkaat quoi. di jégaluwaat ñëpp di jaale si bala si ñor xam nga rek. Hmm. ci dese bi nii yàlla xaaree ko àjjana. di wax ne gars yi nag nañ bàyyi xel bu baax sama mbokku mbër yi benn appel bi may lancé rek. tey war nañ mun doon benn doon benn boo xam te ni ku si am problème sax kenn du la ketal. dëgg dëgg yàlla parce que ku si mel ni booy Malika xaw ma. Hmm. maa ngi seetaan sànq si YouTube bi général Malika mu ngi wax di kaas te effectivement dëgg la. Hmm. xam nga général booy bi mu nekk ay problème nekk ci làmb te gars yi duñ ko taxawu. ku si mel ni Kéba Kanté suñu grand Kéba Kanté. Hmm. wax dëgg yàlla moom nit bu baax la. parce que nit ku baax la maanaam mooy man ñi nga xamante rek. mosuma ko teg bët mais mosuma ko jox loxo yàlla xam na loolu waaw mais dafa def geste bu ma marqué mm-hmm. parce que xamul si Baldé Junior dëkkul Pikine mm-hmm. teraanga dafa sax ci xol mm-hmm. bu ko neexoo mën na dékk mën na ko sëgg comme ñëpp ni ñu ko sëggee mais moom dafa jël teraanga jox def ci pare bàyyi léppam def ci kooku yàlla yàlla defal jàmm di ko wax ne carrément que genre ñu mel noonu ci làmb genre ñu mel noonu la ñu parce que fu ñu nekk dañuy bàyyi xel mbër yi te mbër bu amul làmb du am te làmb lu muy doxal dafa bari nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax mais mbir bu ay problème rek fa ñu kettal ko mun ci génn yàlla nañ ci yàlla musal yàlla sàmm mbër yëpp aar mbër yëpp xam nga si bàkki julli gu ñu nekk nii mm-hmm. dafal ñëpp jàmm mm-hmm. di nuyu ñëpp nag di jégaluwaat une fois bu fekkee nañ ci wax loo ni dafa dëng wax dëgg yàlla ñu ñu rek mm-hmm. fekkee nañ ko loo mooy loolu na nga jégal xam ne ay ndaw lañ xam nga yaakaaruñ denn lu làmb dëgg yàlla di ñaanal sama mbokk séeréer nag waa ñoo joor jonwaar waa munde waa caalaan xam nga waa wanaar maa ngi sant waa wanaar bu baax a baax a baax ak capitaine lu ko ngi sant bu baax a baax a baax waa munte maa ngi ne woo si combat bu ma jëm nii ak suma waa dëkk yëpp waa Ndiafat Séeréer Ndiafat Escale Ndiafat Beyrouth Ndiafat Socé ak soixante-quinze village ko yëpp fépp fu séeréer nekk maa ngi lay woo di la kàttanal nga ñaanal bu baax suma yoon làmb leer nañ daa jàmbër jërëjëf Serigne Ndiaye de léegi kàddu gi mujj mujj mujj bi ma la laaj mooy daan ma fan la yóbbu. la ilaha illallah xam nga ma bëggoon dëgg tournant yow Babacar Lamine. laa bëggoon boole. Uh. waa mais Jamaïcain. Mm. dama bëggoon ko maam ak ak ak Babacar ñu naan daan naka daanu ko. Mm. mais nga ñëw ak Modou Mbaye. 2STV mm. yooyu ñu laa bëgg boole mais Modou Mbaye nag xam naa nante la moom booy Grand Dakar war a mun bëre. wax dëgg yàlla. mais ma daan la yow moom. Uh. damay jàngal kele rek. damay ñëw ngay bandi bandiru uh. kon conseil la boobu doon jox ko quoi di ma jàngal ay kii. ah dama jàpp nga ne da ngay jëm na ngay kolma sa tànk di bande bande man waa kii li muy def nii <laughs> waaye dama teg loxo nga jaaxal moo ma jaaxal teg loxo nii nga ne gëlëb. <laughs> jërëjëf mbokk yi seen Wassare Lamb Ndiaye 2 la seet si woon fii ci Golf Sud di ko jaa jëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal waa fas euh, rawatina Pierre mustafa Guèye mi nga xamante ni moom la doon euh, sàkku ci moom. ndigal ngir mu mën a commencer def émission bi waaye gis nga mu nekk koo xamante ni ku baax la koo xamante ne làmb am nañ ci moom yaakaar bàyyi leen ci xel waxoon naa leen ko waxati leen ko am na ñoo xamante ne làmb dafa am ci ñoom yaakaar Serigne Ndiaye deux mu bu faas yaakaaru làmb la yàlla na ko yàlla kàttanal dooleel ko ba lépp lu mu dugg rek mu am ci lu kawe njortam ndax ndamu làmb ndamu mbëru làmb mooy suñu ndam te Serigne Ndiaye bu amee ndam képp ku nekk ci làmb am na ndam Sococim mu am ndam képp ku nekk ci làmb am na ndam ñu leen di ñaanal bu baax a baax a baax ñoom ñëpp di leen di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di leen kàttalal di wax di gis nañ bëgg ba ngeen ñu bëgg ñu leen di jaajëfal encore une fois di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb jërëjëf aadama yaa mën ñëpp kenn du yow